nous sommes euh, particulièrement heureux aujourd'hui de venir ici à Cité Lamy assister à cette activité sociale extrêmement importante. C'est le lieu donc euh, de féliciter le jeune Bara Diakhaté. Nous, nous sommes depuis un certain temps sur le champ politique. C'est toujours un grand plaisir de recevoir des jeunes c'est le plus important, que les jeunes s'impliquent et des jeunes cadres du quartier reviennent dans leur euh, quartier de, de, de naissance, se rapprocher de leur population, discuter avec eux et les accompagner. Et c'est un signe de générosité. Et pour moi, c'est également un motif de satisfaction. C'est pourquoi je l'encourage à continuer sur cette lancée. Il faut parler aux jeunes, il faut parler aux populations, être proche des populations. La politique demande trois places. Tout d'abord, la proximité. Il faut être proche des populations. Et cette activité montre qu'il est proche des populations. Il faut également savoir être utile à sa société, utile à son lieu de son quartier. Et il ne peut pas y avoir d'action plus utile que cette action médicale. Donc euh, nous l'encourageons à continuer sur cette lancée. Mais nous remercions aussi tout particulièrement l'association euh, Hôpital Chez Vous. Parce que nous, en tant que praticiens, médecins praticiens, nous savons la quantité de travail que les médecins abattent en semaine. Et arrêter toute leur activité malgré le, le, le, temps, malgré la chaleur, venir ici, faire des kilomètres, venir jusqu'ici, accompagner les Thiessois, nous, nous les remercions. C'est un acte de générosité et nous, vraiment, nous sommes particulièrement heureux qu'ils viennent faire cette activité ici chez nous. Et comme l'a si bien dit le monsieur Baradjahate, nous les inviterons à aller à l'est et au nord. Aujourd'hui, nous sommes venus ici à à l'est, Cité Lamy, qui est un bastion extrêmement important parce que c'est l'un des plus grands, le, le lycée, l'école euh, Modecan et le plus grand centre de vote de Thiès. C'est un quartier populaire et venir faire cet acte ici, cet acte de générosité ici au niveau de Modecan, c'est vraiment pour nous une, euh, un grand plaisir et c'est le également de saluer aussi d'autres responsables qui sont au niveau de euh, Cité Lamy. Je veux dire parler de <clears throat> monsieur Maodo Malik Mbaye, qui également de ce quartier, mais aussi d'autres responsables. Il faut être unis. C'est dans l'unité qu'on arrivera à accéder aux, aux objectifs qu'on s'est atteints, qu'on s'est qu fixés. Et ces objectifs, parmi ces objectifs, la zone Est est un objectif important, mais le Cité Lamy et particulièrement Modakan est également un grand objectif. Continuez donc euh, sur cette lancée, soyez unis, travaillez ensemble. Cette générosité vous permettra d'atteindre les objectifs fixés. Merci encore une fois, félicitations et nos encouragements. tey dañoo am mbégte fekk sunu doom daal di ñëw engagé wu ci lii nga xamante ne ci la nekk parce que tey kii ñuy wax Bara Diakhaté xale la di cadre dëkk Thiès tey jii mu ñëw ne day delloo njukkal fi nga xam ne foofu la jóge mooy Cité Lamy mu indi fi tey ànd ak ay xaritam ànd ak ay am di jàmmam muy association bu mag bu ñuy wax kii chez vous l'hôpital ñu ñëw daal di def lii nga xamante ne mooy consultation médicale gratuite muy nag réussite ndax tey gis nañu mbooloo bi quartier bi yëpp génn nañu mag ñi ak ndaw ñi donc euh, vraiment su suñ koy wax pour un coup d'essai c'est un coup de maître nañ koy jàppale ñaanal ko pour que lii nga xamante ne moom la simb yàlla may mën ko cee may ndam parce que politique li ma koy waxee ñett la jege sa askan te jege sa askan mooy lii am njariñ njariñ weesuwul ngay ku feebar nga faj ko waaye tamit nga def ba nga xamante ne di nga mën a waxtaan ak say ay moroom ndax jeunesse tey moom mooy l'enjeu politique ñaar enjeu politique jigéen ñi la ak xale yi xale yi ñooy enjeu politique ak jigéen ñi suñu ñëwee gis tey xale yi donc am engagement bu mel nii jël seen alal parce que tam man mi nga xamante ne yàgg naa def activité xam naa ne alal bu bare def na ko te loolu moom mooy wane ne que jël na alalam jël jotam jël ay relation am yëpp mu boole ko bu delloo si ko ay njukkal ñi mu dëkkal kon nag tey jii ñi ngi sant euh, Baara mais tamit ñi ngi sant waa Cité Lamy yëpp ndax wuyu si nañ ko ndaxte mënoon naa woote kenn du ko wuyu si mais tey jii wu ci nañ ko muy nag euh, loo xamante ne lu rafet la waaye nag comme niñ ko waxee rek yoon warul yem ci benn nañ ko continuer yaatal ko peut-être tey nañu xalaataat côté Hersent ak euh, Daaru Salaam parce que foofu tamit quartier populaire la Daaru Salaam xel nañ war nañ xalaat tamit nu ñuy def beneen action bu mel noonu ñu dem ba Daaru Salaam maram Sané mi ngi ni toog moom muy responsable bu mag dëkk Daaru Salaam xam naa moom itam après nañ def tout pour accompagner ko pour que ñu mun def action bu mel noonu Daaru Salaam politique lii rek la njëriñ jege ak yaakaar yàlla ko yàlla taxaw. responsable yëpp nekk benn euh, garab dëgg si kaw la ñuy fekkante de. waaw ñenn ragal nañu ñu gisee baara ñëw jeune la. est que du dañuy ragal day nekk seen place. déedéet loolu ku ku koy wax politique ku tasaaroo daanu politique doole politique mbooloo la ku la ne man man kese mën naa dem. wax reetaan ko xam ne kii du sori ci politique kon tey muy remercier bu baax aussi di nuyu ki nga xamante ne mooy Maodo Malick Mbaye mi nga xam ne moo dëkk fii politique noonu la addition la saa yu amee kenn ku ñëw rek bul ne def la wàññi def laa yokk te li ñuy objectif bi ci politique du objectif personnel objectif politique mooy jëriñ sa askan te jëriñ sa askan moom mooy nan la ñuy ñëf booloo nekk benn ku ne boole sa doole pour que gën a am njariñ ci askan wi loolu nag defe naa ne koo xamee ne da ngay wax te li ngay wax ne dëgg ci yow ne askan bee ma yëkkati kon defe naa ku bees warulaa jaaxal ku bees kañ dalaa war a yokk waaye warulaa wàññi kon man defe naa ne te loolu xam naa ne ku mel ni Maodo man mi nga xamante ne magam laa muy nekk sama xarit xam naa ne moom noonu lay doxale kon dina yaatal dina gën a waxtaan ak rakkam ndaxte enjeu majeur du Maodo du Baara du man enjeu majeur mooy Sénégal te Sénégal googu ñun ci kiñ kenn lañ ko yaakaar mu defar ko mi ngi tudd Macky Sall te comme ñun ñëpp moom la ñu àndal defe naa ne suñu xuloo suñu biir kon dafa am leneen lu ñu wax te waxu ko kon nag encore une fois félicitations mais aussi encouragement parce que yombul mais tamit di gën a talal loxo tamit ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci est bi parce que su ma ñëwee gis soxna madame Sané taxaw fii nekk responsable bu mag ci zone est bi kon moom mooy wane ne ko kon ñun ñëpp ñoo bokk maa ngi gis tamit euh, le doyen ñas nga xam ne moom mooy le le le le secrétaire permanent du parti moom tam mu ne fi loolu moo wane ne kon xale bi dur gaaw a réer ndax ay magam ko ànd ak moom maa ngi koy sant di leen gërëm wasalaam. Euh, maa ngi tudd docteur Aminata mbay maa ngi pédiatre pédiatre laa faj ay xale laay faj euh, man maa jiite association bi tudd hôpital chez association la boo xamante ni dafa ëmb ay ay fajkat ay professionnel de santé ñu bëri ñoo xamante ni ay jigéen yu wéeru la ñuy faj ak ñoo xamante ne ay xale ñoo xamante ne wàllu bët maanaam fépp foo xalaat ci wàllu médecine rek am na ci kenn koo xamante ne moo koy représenté ci association bi donc kuréel la boo xamante ni dañoo mobile maanaam dañuy déplacé wu te mën nañoo déplacé wu de Dakar à Kédougou fu ñu xamee ni population bi soxla na ñun ñu nekk fa rek dañ fay nekk parce que loolu moom moo ñu yëkkati te loolu mooy mooy biwu association bi. voilà euh, lan ngeen jot a faj tey askan wi ni ñu teewee est que am ngeen satisfaction parce que su ngeen déplacé pour nit ñi ñëw la tamit. waaw euh, kontaan nañ trop ci le fait que ñu fekk fi ay nit gis nañ ni tamit organisation bi jaar na yoon et que population bi li li taxoon ñun ñu jóg. xam nañ ni ñi ngi atteindre sunu but parce que gis nañ ni ba ci xale yi ba ci mag yi ñëw nañ dañoo teel a ñëw mu xam ni ñii liñ leen di defal ñoom xam nañ ko parce que lii ëpp solo mooy nit boo koy dimbali tamit mu xam ne yaa ngi koy dimbali te loolu dañ ciy kontaan trop amaguñu nag euh, ay cas yu ñu jaaxal mais gis nañ ni fii ba 16 heures ñi ngi fii dinañ consulter bu baax incha allah te ñaan nañ yàlla bañ ci am fa cas grave incha allah euh, euh, Serigne Bara Diakhaté chef du service des ressources humaines de l'hôpital Merci beaucoup Babacar. Tout d'abord, je euh, salue les camarades et les collègues avec qui je travaille. Mais je salue d'abord le ministre Dr Amadou Ndiaye, ministre de l'artisanat qui est à côté de nous, pour sa disponibilité, véritablement de venir participer et visualiser ce qui se passe sur le terrain. Et comme vous le savez, avec les collègues, nous nous sommes dit, nous dans la zone. C'était la fait partie des quartiers les plus peuplés de Thiès. étant euh, responsable politique, il nous faut accompagner les populations dans leurs différentes activités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pathologies qui sont là. Et nous nous sommes dit qu'il faut organiser une grande consultation médicale gratuite permettant aux populations de venir, que des médecins spécialistes leur consultent et leur diagnostiquent. S'il y a nécessité de leur donner des médicaments, on leur donne des médicaments. Mais s'il y a nécessité de leur à les, à jusqu'à ce que le, les diagnostics précisés éradiqués définitivement. Oui, il y a l'ORL, il y a l'endocrino-diabéto, il y a des généralistes, il y a des, des urologues, pharmaciens, des généralistes, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a des pédiatres, la pédiatrie, il y a la gynécologie. Là aussi, comme vous le savez, on était en collaboration avec euh, une association de l'hôpital chez vous, Une association qui a, a fait pas mal, de, tours dans ce pays, qui aide beaucoup les populations. Et nous avons demandé de venir nous soutenir, de venir travailler avec nous pour qu'on puisse soulager les diagnostics, pour qu'on puisse soulager les malades de notre commune, surtout en particulier, euh, en particulier cette année. Euh, votre ambition pour votre quartier Thiès, c'est quoi Oui, euh, là aujourd'hui, nous sommes en de matérialiser la vision du président Macky Sall, qui il fait tout son possible pour, pour, rendre aux populations des soins de rapprochés, mais des soins de qualité. Et nous nous sommes dit, souvent les populations ont des difficultés d'aller souvent rencontrer un spécialiste dans les hôpitaux ou dans les centres de santé, du fait que les moyens sont peu chers. Et pourquoi ne pas leur reprocher cette, action, cette activité-là Maintenant, pour ce qui est commune, on a, on a, on a effectué pas mal d'activités. Aujourd'hui, ce n'est que l'activité qui a fait qu'on la presse, mais on, nous sommes tout le temps sur le terrain pour sensibiliser les jeunes sensibiliser les femmes pour leur formation, mais les accompagner pour leur financement. Et de ça aussi, c'est lieu de remercier le ministre de l'Artisanat, qui de par lui, à côté de nous, nous à, à former et à financer des femmes. Là aussi, ce n'est que ça que le président Macky Sall a besoin, ce n'est que ça qu'on qu peut aider le président au niveau de la base aider les populations pour qu'ils puissent sentir les efforts que l'État est en de faire mais qu'il, pour qu'il puisse se sentir de la gestion que le président Macky Sall est en train de faire pour notre pays. Exactement, après plusieurs sorties euh, au niveau niveau de, de votre quartier. Euh, Aujourd'hui, vous avez étendu vos tentacules, on peut l'appeler comme ça, histoire peut-être de mieux se faire connaître au niveau de Citalamine et de TSS. Effectivement. Effectivement, comme je vous l'avais dit, nous ne faisons que, nous avons commencé depuis longtemps nos activités. Et ça, ce n'est qu'une action sociale que nous menons pour accompagner les populations, pour leur trouver chez eux. Aujourd'hui, Ce qui m'a le plus motivé et encouragé dans cette activité, il y a beaucoup de jeunes médecins qui habitent Citalami qui sont venus me voir. Aujourd'hui, nous sommes en d'organiser euh, des visites de, des visites de week-end, c'est-à-dire les dimanches, organiser Fat Magni. C'est-à-dire on fera, il y aura probablement des médecins qui feront le tour de certaines maisons, voir des, des, des gens de la troisième âge pour essayer de voir avec eux, comment les accompagner et comment soulager leur douleur. Là, nous, sommes, nous, nous y travaillons. Et cette activité-là nous a permis d'avoir une idée d'organisation de cette euh, action-là. C'est Bara Diakhaté, le chef du service des ressources humaines de l'hôpital Cheikh Khadim de Touba, responsable pour à Thiès, est-ce bi may tàmbalee Babacar mooy gërëm bu baax docteur Amadou Ndiaye le ministre de l'artisanat qui a bien voulu wax dëgg yàlla ñëw tey taxaw xool li nga xamante ni moom la ñu yéene doon ko defal askan wi mais loolu aussi duñu ci sori te gërëmuñu santuñu l'association hôpital chez vous parce que c'est une association boo xam ni mi ngi wër Sénégal mi ngi wër daanaka biir Dakar fu nekk di dimbali ay nit di dem ba ci les coins les plus de coins de ce pays di jàppale ay nit di xool ñooñu ñu lañ leen di mën a fajee te du ñu dem hôpital wala duñ lañ leen mën a xoolee aussi bu ñu paree suivre leen au niveau local ci waxtaan ak ñoom ñu ne pourquoi pas organiser une activité de ce parce que jàpp nañ ni ni ñu bëggee Sénégal mais biir Sénégal jàpp nañ ni département Thiès lañ ci gën a bëgg mais biir département Thiès aussi jàpp nañu commune Thiès lañ ci gën a bëgg mais biir commune Thiès aussi jàpp nañu Selemi lañ ci a bëgg loolu nag boo ko amee foo gis lu baax wala foo gis lu mën a satisfaire ay nit da ngay fexe loolu nga mën ko defal say nit indi ay spécialistes ndax tey am na ORL am na ay urologue am na ay am na pédiatrie am na ay et il y a quasiment pas mal de spécialités yu ñëw ophtalmologie aussi ñëw pour xool nan la ñuy def ba mën a jàppale waa Cité Lamy jàppale suñu waa gox loolu nag euh, bu ko la ministre fekkee dañ koy yóbbante ci président Macky Sall mu xam ni sant nañ ko gërëm nañ ko te politique am au niveau de la base rek la ñuy àggale li mu def ci wér-gu-yaram daf ko ci santé daf ko ci ay hôpital ak yu mel jàpp nañ ni war nañu mën a fexe ba soin yi ak auprès des populations yi les plus diminués mais fekk leen ba seeni biir gox faj leen et loolu nag tàmbali la rek daañu ko def léegi mu monsieur le ministre mi ngi naan waa association hôpital tey yéen a ngi es mais préparez-vous je vous inviterai à l'ouest donc euh, lu mel lu mel lu mel nii lay jariñ te probablement en tant que ministre qui coiffe quasiment tout le toute la commune parce que lui il ne se limite pas à Thiès waaye wóor na ma ne bu ñu ñëwoon est waaw bu ñu ñëwoon ouest bu ñu ñëwoon ouest itam bu ñu ñëwoon ouest itam dinañ leen bu ngeen paree ñu dem nord mais loolu ñoom dañ leen ci sant di leen gërëm ndax ku ñu jógee dakaar jël bàyyi seen yitte yëpp ak samedi ni mu diisee semaine bi ni mu méttee ci médecin ñu bàyyi seen yëpp ñëw dañ leen sant di leen gërëm amuñu seen fay gis ngeen camion hôpital bi ci biti lu ko dagalee lu ko lu ko déplacé yombul mais par des contacts et consorts fexe nañ ba am ci li ñu am tey di gërëm ñëpp di sant ñëpp peut euh, voilà. Bara Diakhaté lan mooy boo ko si ñenn ñi dafa ñëw pour bousculer la hiérarchie. Euh, dañu dañu ñëw pour jëmmal liggéey bi président Macky Sall daf ci réew loolu nag boo koy daf amuloo doo ci am limite. caméra caméra loolu boo koy def doo ci am limite ndax euh, fi ñu toll bu ñu gisee ñu mel nii taxaw ci dëkk bi ngay def dara. amuñu benn ñu am générosité de cœur et d'esprit ñëw ni lii nga def ñun président rek ñu ñor ku ñu gis mu di ko jàppale fu mu nekk dinañ ñëw taxaw bu ñu ko mënee accompagner accompagner ko donc doo am looy ragal de toute façon fii ki Thiès Est fii ki Cité Lamy moom tàmbali nañ liggéey bi dans quasiment tous les quartiers et incha allahu rabbi dans les jours à venir dinañ gis yeneen xeeti activité yoo xam ni ci biir terrain bi lañ koy sentir gën a wax ak suñuy morom ndaw ñi parce que xam nañ ndaw ñi la ñu soxla ndaw ñi la ñu bëgg li ñu yéene ci réew mi ak li président daf ñu xam ko comprendre ko et bu ngeen xoolee dans l' organisation ay ndaw rek ngeen fi fekk ça veut dire que suñu ambition c' est de faire comprendre aux jeunes li président Macky Sall daf ci réew mi loolu nag lii ci la bokk fexe ba paj mi mu def ak ni mu changé hôpitaux yi mu def ci réew mi ni mu élevé plateau technique plateau médical bi ñu ne mais nañ fexe ba nit ñi aussi sentir ko ci seen biiri kër sentir ko ci seen biiri gox maa ngi wax sànq avant bi ñu terminé ni am nañ li ñu permettre tey ñu def ba am ay médecins yu dëkk ci gox bi nit ñi dañu bëgg a ñëw léegi organiser même des journées wax naa ko léegi boo ko xësee wax nag jaay nga sa projet ndax peut-être bu ñu xëyee droit ko xëy di ko def ci beneen zone <laughs> dinañ ko porter plainte mais quand même fexe ba teg loo xam ni médecins yoo xam ne chaque dimanche ñu wër cibler ay kër jël ay mag yoo xam ne seen seen yaram demeetul noonu su doonte ne te mënuñu dem hôpital chaque dimanche ñu wër jël 6 ba 7 ba diis wër leen faj leen may leen garab continuer di ko con bu ñu ko defee jàpp naa ne am paj dina dox ci suñu gox et dinañ gën ci am li gën a bëgg merci. oui oui c'est euh, oui c'est la première fois qu'on à Thiès mais c'est pas la première fois qu'on organise des consultations euh, Donc l'hôpital chez c'est une association qui est de médecins et il y a beaucoup de spécialités. y a des pédiatres, il y a des gynécos, il y a des ophtalmos, il y a des dentistes, il y a des urologues, il y a des chirurgiens pédiatres, entre autres. Et on a aussi des pharmaciens. Donc le but de l'association, c'est de déplacer l'hôpital auprès des populations. On sait qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits le, sur le plan de la santé, mais parfois c'est difficile pour les populations d'acquérir euh, ces, ces, ces, besoins en santé. Donc nous, nous déplaçons et à chaque fois que le besoin se fait sentir, zone où on est dans le pays, on pourra se déplacer. On n'a pas de souci par rapport à ça, parce que nous, on est là pour tous les Sénégalais, en partant du vieux à l'enfant. C'est pourquoi on part de la pédiatrie à la gériatrie. Et dans, on, on, va faire la médecine dans toutes ses facettes. Aujourd'hui, on est à Thiès et c'est un grand et plaisir rapport, pour nous. Par rapport à l'affluence, vous, vous êtes satisfait oui, oui, oui, il y a, mais on est, en fait, il faut, il faut, on peut, on est content de voir beaucoup de malades et c'est ça notre travail. et ça nous rend fiers parce qu'on sent qu'on est en train de rendre service à, à, à, la société, à la sénégalaise mais aussi à la société thiessoise. Et c'est aussi une fierté pour nous de rendre service à Bara, qui est déjà un ami mais qui est aussi un membre actif de l'hôpital chez vous. À, <laughs> ah, à, la regarder, on sait qu'elle est très ah Est-ce que vous avez eu des cas graves Non, pas encore. On n'a pas eu de, cas graves et on espère qu'on aura pas. On n'en pas encore pour De, dans le cadre du suivi, à chaque fois qu'on fait des, des, des, des, manifestations quelque part, on établit un comité de suivi. Et c'est des patients qu'on va accompagner du quartier à l'hôpital en faisant le sens inverse. On vient vers eux, mais on les, on les ramène aussi vers nous à chaque fois que le besoin se fera sentir. Et s'il y a nécessité de les prendre en charge à l'hôpital, on le fera sans problème.